auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ma sant yàlla julli sallu sallu si naa Muhammad maa ngi sant sama ñaari mag di gërëm sama sëriñ Alaaji Ibrahima Niass maa ngi nuyu assistance bi ma duggee yëpp maa ngi nuyu suñu président équipe laay ñu si ànd na grand pape grand sa ñu ñu su ko si nuyu ñoom Aliou si gars ñu bëgg sama rakk ñu Alaaji xam nga ñoom bëgg la xam nga gars yi bàyyi ma kenn maa ngi bëggee di nuyu senegal di nuyu aduna bi yepp di ñaan yalla nabi yalla jamu may jaamu maa ngi nuyu nag wa Daaru Salaam waa Dangaan waa Bétuwaar Faat Bétuwaar Njolofeen wa Kanda wa Ndar gu ndaw sama mbokku Saalum Saalum bi maa ngi woo ñëpp waa Jaamal waa Fass Moussar waa Kër Bature waa Taïba waa Tamba waa Maabo waa Wanaat waa Daaru Wanaat kër laaj moo rawa kër laaj moo kuma maa leen woo si combat bi di o wa tay Taïba Ñaseen di o wa Caamen wala waa Caamen Sanci di o képp ki beete den mu ndaangan ma lay woo si combat bi di o wa Bang Ba maa ma tuuti rek di woo waa Bang Ba maa ngi woo waa Californie Bétuwaar association des jeunes maa leen woo ak kaay liggéey Kaolack njiit bi di Samba Ba maa koy woo di nuyu suñu président équipe dafay laaj ñoom combat ni ki naa koy maa leen ñaan yàlla may ndam sama booy dëkk Kandaam combat maa leen ñaan yàlla may leen ndam. ayca tey may ma tuddi. di nuyu sama adversaire Thiat bu lew na di nuyu assistant bi teew ñoom maa koy nuyu ak staff Yamoussoukro production bi di nuyu presse bi yi fi teew lañu ñu leen a ñaanal yàlla tey sa yàlla nga jëm la 18 muy sa diggante ak Thiat gis nañ ne kanam gi teel naa xos loolu ndax da nga ko ci contact bàyyi leen saa lay waay ah ndax da nga ko ci contact wala ci xeex mu ko préparé. ñun pare nañ ci côté parce que ay athlètes lañ ñun saison bu tijjee dañuy tijji moom bu tëjee dañuy tëj ànd ak bi dañoo fekk ci préparation ñuy waaj pour tijji saison bu ñu bi par combat bi taxaw mooy loolu. lu ñu mën a xaar durant le donte yeen ñaar ciow li bari na loolu damu ngeen fi seen tekkante ngeen fu nekk combat bi lépp lu gaa ci carnet yàlla ngeen andi xaw ma ko moom xam may jaar mi xam na moom 2012 mu ngi ñëw siwaat man ma rek ak mbusu mel gàddo maa ko dalal siwaat te 2024 maa koy dalalaat fii déet waay incha allahu rabi si kàddu bi yàlla maa ngi ñaan yàlla moom nag si loo koy may ci ay minute xam ma minute xam ma si woon min daal ndam ñu koy ñaan yàlla incha allahu rabi maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu yàlla may dal caat yàgg nga am combat adversaire bu nekk am nga ko mais bu sérieux nii ci sa carrière yaa ngi koy doog a am. awuzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bi sant yàlla bi ñu jëlee maa ngi sant sama ñaari di nuyuwaat di teew ah. di nuyu promoteur bi di nuyuwaat sama adversaire am ah. di nuyu site internet yi fi nekk yëpp ak supporter yi daje yëpp maa leen di nuyu di leen di nuyu suñu nawle yi am. Ah. maa leen di nuyu bu baax a baax di leen conseil di conseil supporter yi di leen wax ne làmb ñaari mbër ñoo koy def supporter defuñ ko mbër ñëw di signé contrat ba koy saaga wala dara loolu amul benn njëriñ dañu ànd ak yar ñii ñu ñëpp ay ay ay ay ay frère lañ wallaay lancim dama koy wax sànq waxuma ko pour nekk Tyson bu nangaan dafa taxaw fii de mais su ma déggee ñu naan Tyson bu nangaan ak caat seen xeex sax daf may naqari ndax mosuñoo xeex maam moom naa ko waxaat ko maam ay frère lañ làmb moo ñu boole xam na li koy yu xëy na ñeneen duñ xam mais maa moom xam nañ ta làmb moom xam naa ne ku nekk Kaolack nekk di suivre caat caat ragal laak du ragal loolu du lu ñuy lu ñuy wax xam nga làmb ñëw na yàggatul xam nga li yàlla xam baax na bu heure bu ci eggee waaw ku mën sa morom rek du loolu mooy wax est caat mi doon gis adversaire yi ñu am ak tey bu nangan bi ndax benn la tey su ma amoon lu may sóoraale sama àdduna mu ma bëre Kaolack treize combats ñëw di jël mbër bu bëre six combats te palmarès mbër bu mbër bu ma daanu Kaolack fii kon su ma bëree treize combats ñëw ci trois semaines ma jël ci mbër boo xam ne six combat la am am quatre victoire am trois deux défaite loolu kon su ma amee lu may ah benn défaite waaw kon su ma amee lu may ragal rek xam nga kon dafa dafa ay wax la rek mais loolu du détail quoi ay am looy sóoraale loolu du détail bu ak bi sifflé ndax ñene nga taxaw bëgg ak Tyson bu nangane yow ci non bu arbitre sifflé comme li ma la wax rek bu arbitre sifflé la fay xew yàlla moo ko xam man xaw ko ci dara en tout cas ndam lañ am sabab entraînement lamb ji bi mu taxawee ba léegi barki alquraani karim bu nekkee sangoo naa saafara yàlla na ma yàlla def dox dafa barki Seydina Muhammad ak lamb ji ma jublu nii bu nekkee lamb ji bi mu taxawee ba léegi saafara mës naa koo takk wala nomba yàlla na ma yàlla xaj jour boobu. ndax ci adversaire du ci adver du question ay adversaire dama la bëgg a wan ne la man entraînement laa gëm ndax man xam naa ne mbër mi may bëreel entraîné kat la xam nga nit ki loo bañ bañ golo nangul ko guddub geenam am na loo xam ne am na loo xam ne kañaan yoo xam ne amul njëriñ quoi man su ma taxawee naan Tyson mun naa daan maa ko ëpp doole maa ko mën loolu wax ju yàqu la xam nga sabab lu ret la ñuy def mais xam naa ne mbër yi ci Kaolack yëpp barki Seexul Xadim boo doon tànn mbër bi daa ko entraîné moom lay doon kon su ma ko jëlee du ma ragal jël nga mbër mu të boo xam na ci ay génération daan na ñëpp. dam caat bii nii xaw ma ñan la waaye du waa Ninki Nanga xaw ma xam ñan la xamul waaye du waa Ninki Nanga Ninki xam na waa Ninki Nanga. am na fa cinq défaite du seet daan na ko Goldo Wejjat daan ko ah Italie bii suñu bii daan na ko xam nga kon buy taxaw naan Ninki Nanga wala Ninki Nanga li koy daal li ngay wax li ngay wax dama laa may. ñooñu am yi ñooñu am waaw dama ye dama ba nga yor dama laa déglu dama laa déglu eh jàmbaare man eh man lijjanti ma la man lijjanti ma la man man lijjanti ma la jaade jaade waaw loolu yëpp jërëjëf loolu yëpp naa mais dama la wax ne la wallaahi naa si maa ngi yow ñooy bëri. jërëjëf tey sax. lamb ja maa ngi yow fay def duum sa nag Baara Ndiaye ak Sama Ndiaye ak yow. bëri yéen ñëpp di remercier nag waa salle bi parce que salle bi tey jii nit da ngay innové tey mënuñ ñoo nekk ci salle lamb Dakar ñoom ñi dem ci salle yi ñu nekk benn yi parce que ñun ay bëri lañu di Dakar avancé ñu loolu la war a avancé parce que ba xale yi ñoo war a jógee fii ok léegi lam troisième édition Papa Demba Bitèye pourquoi troisième édition Papa Demba Bitèye daaw balaa maa jéem Papa Demba Bitèye damay njëkk a wax ci waa waa Sow bi ñoom Kalis ak ñoom Azuno parce que ba ma leen si yaatu ak xam nga Pape daa ñu dara ñoo nga def kon ñooñu maa ngi leen remercier bu baax troisième édition Papa Demba Bitèye dafa mel ni nga ne Pape Mbaye ndax Ismaïla rakkam la Pape Demba sama mag la sama xarit la man bu ma demee premier damay def droit damay def pare moo tax ma ñëwee ko wax le 18 ci côté innovation ak pays ci mu topp ndax pays visa Pape bi waroon naa toog ma expliqué ko ndax kër bi bu ma ko jëlee 500000. 500000 nga jëlee kër bi. jeunes yi nag ku dugg nga fay deux cent cinquante mille jeunes frais organisation seen tool yow organisé kër de ville kër de ville comme ni ñu ko euh, tëgg làmb rek boo tëbee ñoo dugg ren bii ñoo am. ah loolu du am. non bii di ñëw lu ñuy naan. bii di ñëw boo